fa nga xamante ne moo di cour pénal international mais ba léegi bàyyiwul dafa mel ni Moustapha waaw xam nga Juan Branco pour man eh, képp koo xamante ne da nga bokk Pastef da nga waroon a génn tey jaajafal ko tattagal ko remercier ko parce que amoon na fee jamono fii mu ñëw eh, taxaw fi taxawaay boo xamante ne risque sax àddinaam jaar mm. foo xamante ne tey ji lu ne mënoon na ko fee fekk eh, jaare ko Mauritanie nekk yu nekk mu dugg si donc kookee tey jii euh, pour man ku am mérite la ci li nga xamante ne mooy fi ñoom Ousmane Sonko yëg si tey jii. Mhm. mu yoroon volet international bi maanaam médiatiser li nga xamante ne moo di combat bi mu doon avocat activiste boo xamante ne tey jii bëri na ci ay dëkk yu ñu koy dégg yoo xamante ne dafay dem nangu dossier bi téye ko di ko dawal li ko waral mooy bokk na ci tey jii d'abord moom sa personne. Mhm. waaye tamit dimbali ki nga xamante ne mooy client am. Mhm. su ma nee sa personne. moom def si gagné en ura def si gagné euh, ci li nga xamante ne moo di sympathie ak ki nga xamante ñoom lay bëgg a jàppale te du défendre n'importe qui mm-hmm. donc loolu moo tax ma jàpp ne tey jii ñëwam fii ci Dakar lu lu lu normal la patriote recevoir ko daal koy tatagal ñu mm-hmm. daal di organiser conférence moom ak maître Bamba Cissé maintenant bu jëmee ci UCAD bi nga xam lañ ko doon bëgg defee mm-hmm. xam nga Juan bu ñëwee ñëwul ci euh, turu république bi ñëwul ci euh, turu réew mi taxawal réew mi ak yu ni mel mais li ci ëpp dafa ñëw euh, pour euh, li nga xamante ne daanaka mbiri Pastef parce que seen leader la doon défendre ak yooyee mais comme dafa ñëw mbiri Pastef ak seen leader la doon défendre loolu je pense que jarutoo naa yóbbu université Cheikh Anta Diop de Dakar parce que université Cheikh Anta Diop de Dakar euh, buñ ko fa woon rek amaan na mën na am une coloration politique parce que su boobaa mën nga waat ne ñi nekk ci salle bi yëpp waa Pastef la ñuy doon. mën nga ne ñi nekk ci salle bi ñëpp ñi jàppale Ousmane Sonko la ñu doon wala ñu koy kii parce que ñaari avocat Ousmane Sonko ñoo toog di wax ak lépp loo ci mënta wax loolu lañ koy gisee mhm. mais loolu boo ko yóbboo UCAD di benn temple du savoir boo xam ne dafa war a neutre warul am benn coloration politique mën ngaa faussé mën ngaa faussé jeu bi moo tax dama rafetlu bu baax a baax a baax autorités yi ni ñu jëlee seen i ay disposition ba mbir mi ñu daal di koy yóbbu CICES mu am tranquillement CICES am na salle bu normal salle bi mhm. nit ñi ñëw ñu def seen conférence bu jeexee ñu leen ñibbi noonu moo gën a adéquat effectivement mais bu ñu ko dugaloon UCAD euh, xam nga mooy. Euh, non politique daf ciy rax. temple du savoir. temple du savoir merci. nga xam ne lañ ko euh, génn ba mu xam ne moom lañ ko dénk bees nee na du nangooti lépp loo xam ne dañ koy politiser muy jëm ci li nga xamante ne moo di. université bi te loolu c'est très important parce que gis nañ ne li nga xamante ne moo fi xewoon émeute yi nga daan gis université dañ ci daan taq rip bañ na ko ba takk de ñoom dañu daan yàkkamti Euh, étudiants yi commencé ndax ñoom seen xeex du jeex. non moo tax moo taxoon sax Macky Sall euh, délogé la ñu. <laughs> ñëpp yóbbu leen seen kër ñu toog ay weer yu weer jànguñu te loolu tey ji tamit ay préjudice la yoo xamante ne kenn ndàmpu uh-huh. leen ko. Uh-huh. am na boo yoo bu ñu redoubler Macky Sall moo ko def de. est-ce que xam nga loolu am na ñoo ne bu ñu leen dàqee bu ñu cartouché Macky Sall moo ko def de. muy muy fautif bi. jàng à distance boo xam ne ñoo xam en place pour nit ñi mën ko def. non Macky Macky te loolu yëpp mbiru politique moo ko waraloon. Macky li mu tooñ bëri na si dëkk bi li mu tooñ. non Macky Macky Sall tooñ kon est ñoo def baalu national. li waaj doon wax Assane Assane Assane Assane Ablaye tooñ nañu waaye waaye Ami Ami Ami tooñ nañu Macky tooñ tooñ nañu. Ah. secteur boo jël rek boo jël rek. da nga fay fekk est-ce que doo ñëw nga def baalu national. Ah, peut-être war ah, na jégal moom neen du baalu waxoon na ko fi. baalul ak amul amul ko amul ko muy baalu ak amul ko muy baalu ak amul ko muy amel ak. ak dafa sew nag. on verra non amel nañu ak mënoo dëkk ba dem te ameloo ak sa waa dëkk ba. parce que chaque jour nga def loo xam ne ànduñ ci mais da nga naan euh, raison d'état moo tax nga koy def yaa yaa yow lañ dénk sécurité yow lañ dénk nangam mais su boobaa loolu àq la. Mhm. la xanaa xam nga le fait ngay jàll ñu bloqué nit ñi rek ñi jàll àq la. Mhm. ak ñoo xamante ne amoon ki loolu ak àq la bu weer de bu tabaski jotee wala côté war nga taxaw devant Sénégal nga ne maa ngi leen di baaloo àq yi ñëpp. Mhm. ku ma ci ameel àq baal ma àq. war nga leen baalu àq parce que ameel nañu àq. te loolu àq yu sew yi rek laay waxuma yi Moustapha est-ce que yaakaaroon ne peut-être Juan Branco ak Maître Bamba Cissé am na lu ñuy waajal pourquoi ñu toog ba moment bii di def li nga xamante ne moo di conférence Juan jógee dëkkam ñëw Sénégal. man gis nga pour man nag xam nga neexul neexul neexul wax de. Mhm. mais président Macky Sall. Mhm. suñ ko bàyyee si ndaataatal la xam. waxuma nag buñ ko bàyyee ci lan. <laughs> ami dara suñ ko bàyyee si jàmmam. déedéet waxal li nga wax buñ ko bàyyee ci ndaataatal la buñ ko bàyyee si jàmmam. yi da nga ne Macky jóge fi moo tax nga seen toog fi naan ci naataandal <laughs> ma ci naataandal waaye dégg Moustapha convoqué saa bi maa ngi lay gunge dig. nañ ma nañ ma dimbali yow doo yow wax ñu bëri rek ngay def waaye doo <laughs> dugal nga waaye yàlla baax na. waaw <laughs> ah, su dee saa bi tey naan hmm? Macky Sall naataan xaw ma naataatal la xaw la xam loolu c'est pas mal c'est pas péjoratif aussi. Aïcha façon de parler rek ko ci bàyyee nga ne. man ne suñ ko si bàyyee. Mhm. ba ñu dem fi ab euh, diir ba tollu fenn waaw ba jeex na. match ba jeex na hmm? ah, mhm. ah loolu de musiba naaru laay la ah, ñun de nag ñun suñu dëkk la boo xamante ne vraiment Sadio Mané bu ñëw dañuy am problème de. nee na match ba jeex na lii lépp Macky Sall léegi la moo ci mag. da xam naa mi ngi doon seetaan waaye ñu la doon déglu. kooku mi ngi doon seetaan mi ngi doon seetaan waaye ñu la doon déglu lan moo ci yoonu Macky Sall ci match bi nag wax dëgg yàlla nag bàyyi leen jàmbur bi. ah. Moustapha ma ne suñ ko si bàyyee. Mm-hmm. xam nga déjà yaa ngi gis député assemblée nationale yi ñu ne duñu bokk ci commission ad hoc bi mu leer ne loolu bu ko defee si ndigalu Macky Sall lañ ko defee. dina toog à distance di piloter li nga xamante ne moo di parti dina toog à distance bëgg di doxal ci biir dëkk bi. Mm-hmm. je pense que na tey jii euh, amnistie bi mooy problème bi. mais suñu demee ba topp mbir gis ne war nañ koo woo man damaa jàpp ne bu yéexantu ci woo bi. parce que bu ñu ko yéexantoo nekk fii di xool naan dañuy def loo xam ëllëg bu affaire bi retourné ba daanu seen kaw duñ am kuñ ko fuñ ko fuñ ko waxee. dañ koy politiser dañ koy politiser. Mhm. moo tax ma ne su ko dossier laajee comme niñ commencé def nii ah bu laajee président Macky Sall suñ demoon bu dossier laaj ko mu soxla ko mu ñëw nañ ko dem jëli indi ko buñ ci seet Jean buñ ci seet Paul parce man pour man boo nee justice na yemale ñëpp ci yoon. parce que bu ñu ko fi defoon nii tey jii bu ñu doxee ba élection jub si wala dara am coïncidence am bu ñu fi ne indi leen fi président Macky Sall ko fi kenn woo. parce que mbiri politique ngeen di dëgmal te xam ngeen ne war naa am sañ-sañ pour bokkaat ci élection loolu moo tax ma am yaakaar ne tey ji ay mbiram il faut ñu dem ci ak courage bañ fi nekk di déglu ay nit di wax nii ak nii ak nii su dee su dee nécessité na am na pour ñu woo ko nañ ko woo su amul nag nañ ko bàyyi mu toog fa mu toog man loolu laa ci gis Ah, Sénégalais dañoo dafa mel ni pare nañ pour ñu woo ak Sall parce que am na benn pétition boo xam ne. presque war na def mm-hmm. mois wala mu jege ko. lancé nañ ko ngir ñu daal di yamal li nga xamante ne. Ah, moo di mandat d'arrêt international contre moom mi nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew ndax dañu jàpp ne daal lépp loo xam ne rek am na fi moo xam lu ko dalee mars deux mille vingt et ba suñu joonu yàllay tey moom am na ci loo xamante ne am na ci part de responsabilité parce que ci nguuram la amee woo mais mais Ami bu ñu waxantee dëgg. Mm-hmm. Macky Sall ni mu def réew mi ba dem yombul yow ñu dénk la kër nga rajaxe ko sànni lii toj lee ba mu neex la def xool beneen exemple laa jël bu gën a simple mais servir Sénégal ami service Sénégal fondation service Sénégal scandale du ko gën a màgg ci réew mi scandale ak jaay doole bu ko gën a màgg ci réew mi amul yow nga am benn fo sa jabar ñëw nga jox ko fondation mhm. mu ne mi ngi faj nit ñi mi ngi yóbbu ñuy màkk mi ngi maye ceeb mi ngi maye diwlin mhm. léegi nga dem euh, fondation bi duñ ko contrôler amul audit amul dara mu liggéey ak ay nit yow nga dem ba war a dem daal di jël sa décret ne tasaare naa ko fondation bi léegi fondation bi dissoudre naa ko tas naa ko jël naa sama waag ànd naa sama jabar dem naa. sama dafa bëgg tas de tas na fi Pastef léegi mu tas fondation. jabar mu bi dem yoonam léegi loolu. tas fondation ba. Ah, bañ kenn gësu si. pareeguñ mu amnistie fi. mu mu indi amnistie dem yoonam. waaye léegi yow loolu moom laa lay expliquer nii léegi ma ne fondation benn la léegi loi d'amnistie bi nga xamante ne voté na ko dem ba Bah Diakhaté mi par exemple luñ ko indi léegi dossier ku plainte am ku lal dil mais loolu loolu rek loolu rek warul war doon raison tamit bi Moustapha Macky ko lal ko lal mais xam nga tey jii loolu loolu rek c'est une raison pour ñu pour pour ñu xoolaat ko parce que Sénégal dafa dund lu mësta dund mhm. ñu doon xaar règlement de compte mhm. mbir mi ndax jaar na yoon wala jaar yoon naka lañ koy lijjantee ak yooyu noonu waa ji effacé lépp daal jaar ci buntu bu génne dem est-ce que kon nekkul moom ah, mais effectivement moom doon amnistie parce que xam ne tey ji bu justice démarré woon tey ji am na yu bëri ci moom boppam la doon dal lépp buñ ko topp ak koy effacer ñi doon recruter nervi ñi doon dóorlu doomu jàmbur léegi ñoom anañu mhm. léegi ñi doon sos ak ñi doon yàq der ak ñi nga xam ne dañ doon saagawaate te bu ñu leen jàppee ñu ne dugg na ci amnistie bi léegi ñooñu dañuy toog di seetaan rek effacé noonu gis nga impunité boo ko xësee ba ji boo ko xasee ba ji di ko nëpp nëppal di nga ko def ni waaye day génn tôt ou tard mhm. te loolu nag fi ñu toll buñ ko buñ ko lijjantuwul sulli ko génnee ji bi teg ko nële mhm. bu fi bu màggee problème dina am mhm. parce que ëllëg di nga fi gis beneen président même bu président Bassirou Diomaye Faye wala keneen koo xam ne dafay ñëw ñu dénk ko réew mi mu def lu ne weng ci dëkk bi def lu ne weng def amnistie dem ba élection des une semaine mu dugal am na loi d'amnistie laal amnistie laal amnistie mu génn dem yoonam day yomb nag pour man li ko ñemee def de lii Afrique kese nga ko ñemee def non mais yeneen dëkk yi mais loi d'amnistie boobu mënuñ ko mënuñ ko mënuñ ko annulé ah mën nañ ko de mais mais Sarkozy da amulante fi ak yoon waaw ah, mais Abdel Aziz bii Mauritanie mii nii. Mauritanie de de dentuñu ko fi. waaw mais yooyu yëpp am na fi. ah Hissène Habré nag. Hissène Habré ak ñeneen ak. ñeneen ak fii la ñëwoon. waaw mais ah, fii fii la ñëwoon ba yàlla moom ko. ba yàlla moom ko waaw yeneen ak yeneen ak yeneen gis nañ ko fi mais. li ñu dund si si régime bi passé pour moi c'est trop facile léegi après mu ne dama bëgg pardon dama bëgg jéggal te amoon na fa ay moment ñi ñu doon ko ñaan jéggal mu bañoon. ku ne ñaan da ko jéggal ku ne bàyyil bàyyil mu lànk ne du bàyyi mu jàpp mu jàpp rek rek piqûre leen wala ma delloo vaccin yi. waaw ba dama maye ko <laughs> bu ngeen bëggul ma maye ko dëkk suñu dëkkandoo yi fi nekk ñoom soxla nañ ay vaccin sa <laughs> nappoon nañu de. yàlla moo tax euh, lu dul lu dul lu dul jeex amul nguur yàlla rek moo dul jeex waaye nag ji nga xamante ne ñoo di suñu ay mbokku internet cant ak ngërëm na leen ñoom cant gi nga xam ne dañuy am ci dañ koy am ci ñoom jëmale ko ci ñoom. amul jeex mukk dam voilà Cheikh Cissé sama doomu baay faatu Fa Bocc Benaan Ibrahima Faye jaajëf nañ la bu baax El Mous El Mosquito Alassane Sonko Ibrahima fay Asrafil yaa ngi ci biir Talla Niang Cheikh Alassane Sonko voilà ak ki nga xamante ne moo di faatu Fall jaajëf nañ leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ne. yéenay safoo ànd ak suñu ay programme di leen wax nag ngeen partagé li nga xamante ne euh, moo di vidéo bi ngeen aimé activé cloche de notification bi ngir bépp vidéo boo xamante ne rek amal lañ ko ngeen euh, daal di koy mën a am à temps Moustapha mu mel nii la nga xamante ne ci mbirum drogue bi laa bëgg ñu wax tuuti Moustapha parce que jamono ji drogue bi bëri na bëri goo xamante ne ci réew mi jéggi na dayoo waaye nag euh, gàcce ngalaama ñi nga xamante ne waaye ñoo di waa douane parce que gis nañ ci décalage yu presque deux trois jours wala cinq jours ñu def ay saisines yu ama am solo yoo xamante ne wax dëgg yàlla jar nañu daal di leen jaajëfal parce que drogue bi ni mu mel na ci dëkk bi métti na drogue bi ñu bëri def nañ ngir drogue bi fi ne nii am na ci ñoo xam ne dañuy dem nii rek mais nekkatuñ ndax drogue bi école yi drogue baa nga fa feneen ak feneen foo dugg daal réew mi su xet mu xet maa ngi mel ni tulleeg maal yi ah loolu saisi yu bari dafay wane ne rek sa euh, circule mu ngi circuler si dëkk bi mhm. parce que bu duggee si dëkk bi ay xar tuxuñ ko ay golo tuxuñ ko ay xaj ah. tuxuñ ko ay nit a koy tux mhm. wala ay nit a koy pikiir wala ay nit a koy fóon donc dafay wane ne rek mi ngi circuler si dëkk bi et heureusement que euh, douane bi ñu ngi def liggéey bu am solo à chaque fois ñu ngi procéder si ay saisies. Mhm. léegi nag euh, criminaliser nañ ko. mbir maa ngi gën di wéy mhm. ñi ngi jàpp mbir maa ngi gën di wéy pour man liggéey fan la nekk léegi nañ dellu ci sensibilisation bi mhm. gën a diisal sanction yi ci narcotrafiquant yi nga xamante ne ñooy dugal mbir mi waaye tamit borom doole yi nga xam ne dañ ci dugg xam nga Sénégal fii mhm. est-ce que di dégg ñu jiñ fi kilifa góor jigéen di nga jiñ fi mais taxaw ba ne drogue bi bañ ko jàppee bañ toppee chaîne bi topp ko topp kilifa gi la gis est-ce que nga gis doo gis drogue yi bañ ko jàppee duñ ko duñ wax non du yegg mukk ca chaîne ba ca kaw et ça pose problème dafa war a yegg na dafa war a yegg bu fa yeggul yaakaar naa problème bi du résoudre du problème bi du résoudre mais que ak euh, autorités yu bees yi ñoom na fa yegg ñii kafuñ de ñii kafuñ xam naa loolu nee nañu bu leen autorités yi dimbalee rek nañ fàtt frontière yëpp ba gars yi ko fi doon dugal dootuñ ko fi dugalati. non mais c' est parce que am nañ jumtukaay. ñi fawul folu boo gisee ni ñu koy génnee nga xam ne am nañ jumtukaay. Mhm. te actuellement la peur a changé de camp parce que ñoom ñi liggéey si trafic boobu ak li ci nekk xam nañ ne mbir yi na. te actuellement du dootul yombati si ñoom moo tax ma am yaakaar ne rek leen autorité gën a dooleel ñu liggéey ci sensibilisation bi euh, fexe ñu gën a éradiquer ce fléau. Mm-hmm. ñu bu ñu génnee foofu dafa am ponk boo xam après ñu ñu xam naa ba ngaa ñibbi. non ponk boobu rek la ñuy dañuy la ñuy la ñuy wax ñu dem parce que man mi sax damaa soj. xam nga guddi gi du ma arrangé. Mhm. voilà benn ponk bu am am solo bi nga xamante ne euh, ci démb ci conseil des ministres bi élaboré nañ ko muy fecc bi nga xamante dañ koy nemmeeku ci école yi mooy feet yi ñuy def ci école yi. journée culturelle yi gis nga ki nga xamante ne moo di euh, inspection bu Louga la mu génne dafa interdire mbir yooyu parce que dañu gis daal sabar yi léegi xale yi dañ ciy fecc ay fecc yu doy ay vidéo yoo xam ne daal daanaka xamee ko woon ci la nga xamante ne moo di dañ fay joxe ay xam-xam gis daanaka sabar yi léegi xale yi solo suñu sax sër mu safaa seen short la ñuy sol wala seen jiin déchiré dafa def yoo xam ne daal la yàlla xam doy na mais ami man dama mës a contre sabar ñu dugal ko ci biir école. Mhm. man dama mës a ñu fay def ay kermesse. dama mës a accord ñu fay def jeu génie en herbe noonu lañ daan euh, defee li nga xamante ne euh, moo di Fosco génie en herbe classe bu nekk ñëw compétir classe bi gagné ne mhm. ñu dem kermesse ñu def yeneen jeu yoo xamante ne ñu def course ñu def ay yeneen jeu yoo xamante ne. Mhm. après di nga gis ne école bi vraiment du du impact dara ci image yu école bi. mais buñ nee sabaru bu ñu ne soirée la cay xew mar day taali ca ginnaaw école après la ñuy comprendre. souci suus ak ya ca am yooyu yëpp ak yeneen yi nga xamante ne xale yu góor xale yu jigéen si jaxasoo ba mar détail di ci am loole école du bërëbam moo tax ma jàpp ne tey ji dañu nekk di raam loo xam dañu nekk di seetaan loo xam ne mi ngi raam si ñag bi la jëm te bu fa duggee du euh, bu fa amee kër du neex a génnee Euh, autorité ñi nga xamante ne ñoo nekk fële ca Louga def nañ ko inspection yi. nañu mhm. ne ñëpp toppaloo doon parce que léegi Fosco bi jub seeti parents yi seen fiti dootul dalati. parce que xale yi lu nekk la ñuy def si biir école yi lu nekk la def si biir école yi te école loolu du woon loolu taxu ko woon a jóg. école li ko taxoon a jóg mooy euh, joyanti yar. Mhm. mooy taxawu ñi nga xamante ne ñoo di élèves yi ak euh, jàngal jàng ñu fay jàng. mais malheureusement suñ demee ba école soirée mu mu raw soirée guddi town y' a problème. Mhm. y' a problème te xale yooyu di ko def seen i waajur duñ ko yëg bu ñuy génn seen ñu sol ah, seen bu ñu demee dugg seen benn kër benn kër ba bu jigéen futteeku sol fa loo koo ci photo woon ko baayam ne ko kii nii la nekkoon ci sabar nga ne araam du sama doom. araam na ko naan nga ne araam du sama doom du sama bos. waaw léegi loolu fooy muccee li leen ci mën a di moo amatul si boppam. waay léegi bu sabar amatul nag nañ seet feneen fu ñu ko feccee. Mm. furul ci école bi. je pense que Moustapha ñi nga xamante ne itam ñoo di euh, jàngalekat yi am nañ ci part nga xamante ne moo lay jàng yaa benn comportement boo xamante ne bu jaaduwul la ci moom wala nga gis yenn sol ñoo xamante ne sol na ko nga dàq ko ne ko demal nga changé li nga xamante moo di séeréer bi nga doog a ñëwaat ñoom aussi am nañ ay part de responsabilité. bi léegi moo nekk ci crise ami bu bëggee dégg parents yu bëri dañoo démissionné yaakaar ne école mooy dimbali ci yar bi te du loolu. Mhm. l'éducation c'est à la maison l'instruction c'est à l'école loolu la ñu wax mais su fekkente ne école bi dafay ñëw euh, war a yar nga dem fekk fa benn euh, professeur boo xamante ni Moustapha la toll. mook ñi muy jàngal li ñu maganteel bëriwul ñoo tolloo génération ñu dugal ko ci groupe whatsapp yi nankan monsieur da ngaa lii wëg monsieur ngay def nii wëg monsieur nii tey li nga sant tey monsieur sa dàll yi mool na yow nga commencé di reetaan di pis xale bu ngeen génnee ak ci jël xale ci inbox suuf di waxtaan ak ñoom dootu la jox cër kooku bu ñëwee sol fa benn décolleté boo xam ne xam nga ne jaarul na après nooy def da nga koy xool di ko message suuf nankan booy ma jàmm nga toog sigg xool ko ne waat ni jàpp contrairement ak suñu maam ya nga wala suñu yaay ñoom seen professeurs yi dégg naa dégg naa ñoom ay kii lañ leen defoon ay mythe lañu woon parce que amuñu woon kan moo ne kan moo ne ami sabar am na solo techniciens yi fa ma jëm ak ñoom <laughs> nga suñ techniciens yi ah waaw baax na sabar am na solo organiser sabar ci kër gi kon euh. te am ngeen fitu lu ne loolu na yem nangaan sàmm falaayam nag. lii lii lii yëfu kan lii non bitee du def yi bitee sëriñ la Mansour tamit du def. Alioune la dil wi di bépp dil bu lalu ci kër gi. Alioune ñëwul na solo loxo Alioune génn ci. <laughs> voilà parce que Moustapha nga xamante ne ñoo ne eh. suñu ay yaay wala ñun ñi sax suñu professeurs yi ñun ñemewuñu leen woon wala bu ñu leen njëkkoon gis nañ leen di làqatu parce xalaat nga ni suba boo dajeek moom ci école ba dina ne lan moo doon tax nga doon taxawaal ba dem jàngi joo par contrairement ak léegi fii bu bu fekkente man gis naa sama professeur maa koy njëkk a nuyu monsieur mm-hmm. Sava dafa mel ni xar kanam ba nga xamante ne école amoon na